aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki internet yi nga xamne noy top topp Wadduha TV Sen bokal Haji Modou Cissé gannaaw banu nu nuyo siyaré len nu fasiyene yéene partage ak yeen nafila nafila bo xamne nafila baraka la nafila bu am barke si képp ko xamne manam da ngay tukki manam da ngay si barab dem si barab mo xam dekk la ak ham mo xam rew la ak rew si kàttanu yàlla soo ko defee yàlla dana la kàttanal nga dem ak bismillahi rahmaani rahim yàlla dana naatal tamit dana barkeli la nga fay uti te da nga dellu si waat ak alhamdulilahi rabbil alamin bi boo waree tukki si misaal aljuma danga koy def alxemes si misaal boo waree tukki altine nga def ko dimaas soo waree tukki talaata nga def ko altine si guddi naafila bi ñaari rakk la rakk bu njëkk bi gannaaw fatiha wa yanqalibu ila ahlihi masruran moom ngay def téeméeri yoon wa yanqalibu ila ahlihi masruran moom ngay def téeméeri yoon ñaareelu rakka bi gannaaw fatiha wala sawfa yuxtika rabbuka fatarda moom ngay def téeméeri yoon wala sawfa yuxtika rabbuka fatarda téeméeri bu ko defee ñaari rakk yi jeex na nga sëlmal boo sëlmalee wala saw fa yuxtika rabbuka fatarda moom ngay def junni mooy lim bu mag bi mën nga ko def téeméer tamit mooy lim bu ndaw bi gannaaw ba nga sëlmalee da nga koy sikkar téeméer bu dee lim bu ndaw bi nga jël wala junni su fekkee lim bu mag bi nga jël soo paree nga def yaa jamilu nga def ko 66 fois yaa jamilu yaa jamil 66 fois muy juroom benn fukk ak juróom benn comme sunu mbokk euh, anglophone yi nga xam ne macha allah dañuy faral di may wax chiffre yi nu koy wax si wolof soo defee yaa jamilu 66 fois nga def yaa xaniyu yaa moxni yaa waxaab xaniyu moxniyu waxaabu ñetti turu yàlla yooyu moom ngay def 70 fois te mooy juróom ñaar fukki yoon fa tabarakallah li nafila la boo xam ne képp kuy waajal toxu maanaam kuy waajal tukki te mooy jóge si barab dem si barab moo xam da ngay dem ngir affectation moo xam da ngay dem ngir e, immigré ji moo xam da nga fay dem ngir da ngay jóge si barab dem si barab ngir jaamu Yalla ak domine bu mu mën na rek si Yalla yàlla nga def ko si veille bi wala ngay dem si kàttanu borom bi yàlla dana barkeel yoon booba ngay tukki tey da nga dellu seeg alhamdulilahi rabbil alamin kon mbokki internet du Wadduha TV ngen topp nu si yeneen i wa wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu seen mbokk Alhaji Modou Cissé